sama

salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi ak bergerie boo xam tey kenn dootu ko présenté kenn ci élevage muy bergerie Serigne Touba bu Maïbra Diagne Maïbra Ladoum TV nuyu nañu waa seen naal yi ñu ngi ziar baax di ziar waa Ladoum TV di sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul di eh, maam tey da ñëw ci bi mel ni dangay ngay jàngale waaw ñoo gis nga indi ay communes yu mag indi ay tënk yoo xam peu comme ay doomu Washington ñu indi leen fii tey exposé leen ak ñaari maal yoo xam ne maal exceptionnel maam lan ngay jàngale ko tey ci foire waaw xam nga tey jii nii sax femelle yu mag yi indiwuma leen parce que soo xoolee yii femelle yi nii ay femelle benn porte lañ waaw déedéet ay femelle benn parce que ñii seen yaay ñi ngi fa ñii soo xoolee li ñuy jàngale fii mooy dañuy wax élevage fi nga xam ne fi ñu juge ak fi ñu toll parce que soo xoolee ñu indi nii bàyyi seen yaay seen yaay yee doon ñëw ci foire yi parce que soo xoolee maal bi ñun yore nii muy Pape Cheikh soo xoolee mu ngi am 14 mois euh, euh, Prince mi ngi am mi ngi am 19 mois soo xoolee femelle yi fi nekk yëpp bu si nekk amul amul 18 mois dégg nga su fekkee tëng yi dama indi li fi nekk yëpp presque dem na si 11 tëng yoo xam ne yëpp ñu ngi am 5 mois ba ay 5 mois et quelque soo xoolee jeune mâle yi dama indi taawu kii Eh, benn bu góor ak benn bu jigéen indi taw prince benn bu góor ak benn bu jigéen te ñoom ñëpp soo xoolee ñi ngi toll ci cinq mois waa cinq mois parce que ñoo amandoo doom comme tey ak suba la waaw loolu nag li ko waral mooy di jàngal nit ñi élevage élevage nan la war a doxee parce que damay chaque jour maa ngi koy wax tey maa ngi koy waxaat eh, éleveurs yi bu fekkee ne bëgg na nañoo nekk champion eh, bëgg am loo xam ne war nañ ko mën a liggéey ci élevage dañuy xool ñaari champion seen doom wala moom boo xam ne mat na cinq mois ba six mois ba sept mois boo ko jëlee balay am douze mois da nga am doomam wala treize mois nga am doomam bu boobaa résultat bi day teel a génn waaye soo toppee xar yu mag yi te xamoo ko xar bu mag dafa mën naa bari jikko bii man na mamit bii su soow bi mën naa naqari lu nekk man na si waaye soo jëndee tëng bëgg see liggéey bu soobee yàlla incha allah li nga bëgg da kay koy am parce que du yàgg dara nga doon champion parce que ñaari champion yow ñoo jur li nga yore li nga yore bu amee doom beneen champion champion lay doon. macha allah jërëjëf jërëjëf. maam loolu nekk lu am solo mais dañoo moom xam nga nit nekk looba Tëngéej dama fee bokk. Tëngéej dama nekk si ñi nga xam ne wax dëgg yàlla dañ see war a joxe exemple moo tax bu lu mel ni ñëwee euh, il faut que lépp loo xam ne man naa ko danaa ko ci def parce que yii xalaatuma woon mu génn ku dul Fiera ñoom ñëpp ak seen i morom ñi ngi fa mais bi ñu ñëwee ba nga xam ne ñu ngi liggéey liggéey bu toll nii ak Tëngéej nekk Carrefour boo xam ne élevage laadum dafay mi ngi ci cent pour cent ñu ñëw indi nii pour ñaaxaat ndaw ñi ñaaxaat éleveurs yi ñu gën a yokk seen liggéey bi yokk maturation yi ba xar yi liñ bëgg ñu am ko jërëjëf waaw Assane Gueye waaw waaw prince mu ànd ak wax prince. waaw prince euh, dama koy saa su nekk prince dafa nekk boo xam ne mënut a bon. prince su euh, gënul Assane asan gënu ko waaw parce que prince yaayam doomu Abdou Fall la waaw prince amagul deux ans dix mois la am te soo xoolee nu maal di toll toll na ko ba pare lu ma gën a intéressé sax si prince du si dayoo du si dara parce que man concours mais man liggéey xar bu sotti moom moom moo ma yitteel te bi ma ko testé testé ko parce que prince soo xoolee euh, li ma doon wax Assane Assane bi muy ñëw kër ga 19 la tëb ah 27 euh, la tëb waaye mais prince bi mu tëbee 19 ma koy essayé 20 la woon sax mais benn bi xalab bi 19 yi bi mu ko tëbee ñoom ñëpp ay champion la jur jurul lenn lu dul champion kon ku mel ne prince moo tax vraiment ma jël di ko waaye nag euh, seen naali ñoom ñëpp seen i nga fa waaw yi ngay gis nii <laughs> ñoom prince ñoom parce que ñoom docteur Boye nga fa ñoom Oscar nga fa am dee nga fa maara nga fa ñoom ñëpp a ngi fa maal yu mag yëpp a ngi fa ak foomeel yu mag yi waaw ni mu mel ci Pape Cheikh moom moom rek moo ñu mën a présenté mbay ñu ngi lay nuyu yaa leen maa ngi leen di fay mbay dañoo bëgg nga présenté ñu Pape Cheikh ñu xam kan mooy Pape Cheikh waaw Pape Cheikh moom doomu docteur booy la hmm. Boy nag doomu Washington la hmm. mais nag boo dikkee nag ci koy kata yaayam fi mu bokk daa bëri ndax moom hmm. doomu Amadou Mbodj lañ teg ci saltige saltige sa la am doom bu jigéen teg ko xelkom xelkom di doomu xalaat xalaat doomu jee hmm. am fa bu jigéen teg nag si booy mu daal jur Pape la kiri kon kaak gi gay nañ njolloor gi da nga taxoon Mbaye Assane 2 daa mel da ngaa folli Assane ndax Pape moo te ah. moo defar tamit la ah. moo gën a tax xam ma fa dëgg yàlla mais tamit Pape Cheikh tamit ak Assane 2 euh, mënuñoo bokk si man hmm. ndax Assane dama koo jënd sa Pape nag sama liggéey la parce que ñoo ko liggéey ñoo ko giddulu hmm. yaayam ñoo ko giddulu papaam ñëw juddul uh-huh. ñaari maam yu ko seex tamit lépp ña nga kër ga toog macha allah mbay ñëwagul mbay dina ñëw ndaxte mbay doomu xel koom la moom tamit ba tey uh-huh. mbay doomu xel koom la yaa nag doomu Abdou la uh-huh. mooy sama mère doomu Abdou bi ma yor mooy Marie Madeleine moom yaa gi rek xar la yaa rek élevage bi ñëpp ci topp élevage bi ñëpp ko nangul sa suur ma dee ci xaalis boo xam mbaa du ko nangoo jaay fa dëgg yàlla loolu moo tax sa kër ga tamit bëri nay champion bëri nay champion boo fa maaraam ko doomu Assane 2 la yaayam di doomu Xelkom am dénk fa yaay doomu Assane 2 la yaayam di doomu Washington macha allah ak Oscar di doomu Masis mm. yaay di doomu Boy Séeréer fa dëgg yàlla mm. ay champion daal ñoo fa toog rek ay champion macha allah Mbaye ñu ngi lay jaajëfal maam xam naa ñu bàyyi la nga tàggatoo rek waa jaajëf seen naa leen di sant ñëpp di sant euh, mboolem éleveurs yi mm-hmm. waaw waaw di sant Ladoum TV mm-hmm. eh, di la sant di la gërëm te di la xamal ne la vraiment ñun suñu xol sedd na parce que depuis si suba ba léegi même bu dul moom yaa ngi war éleveurs yi mm-hmm. yaa ngi leen di nemmeeku yaa ngi xool sujet yi te yow dalay leer ne soo xoolee par rapport ak daaw ak ren mm-hmm. dafa am différence bu rëy a rëy a rëy boobu nag wane nañ ko fii si Tëngéej kon daal damay ñaan waa Tëngéej yàlla na leen yàlla tafal cat may leen fanu gudd may leen wér gi yaram ba lépp loo xam ne bëgg nañ koo yóbbu ci élevage suñu borom def ko ñu yóbbu jërëjëf di sant nag mboolem éleveurs yi jox gaay rendez-vous allah Fiara bu soobee yàlla Fiara ok